waaw li tax ñu ñaxtu lenn rek la benn point la muy euh, commission ad hoc bi nga xamante ni président moom moo ko santaane woon. Mhm. pour ñu def ko. Mhm. pour régler problème invalide yi. Euh, euh, parce que ñaxtu yi bëri woon na moom mu bëggoon régler problème yi définitivement moo waroon mu créer benn commission ad hoc pour pour ñu régler suñuy problème. mais commission ad hoc bi dafa pare depuis le depuis mois février mois février passé 2023 la pare. Mhm. booba euh, tey muy traîner si si diggante ministère forces armées ak présidence ñun booba tey ñoo si ñoo ngi si dox nag ay jéego. di laajte affaire yi fu mu toll. mais suñu laajtee ñun toog leen xaar ba benn moment tamit xaar bi tamit bëgg a yàgg daal di génn ñaxtu bi ñu génnee ñaxtu ñu xamal ni président signé na ko ba yóbbu ko ministère forces armées euh, ministère forces armées xamal ñoom yóbbu nañ ko finance bi ñu génnaatee ñaxtu. Euh, après colonel Alphonse Sarr woo ñu. Mhm. muy chef cap di directeur cabinet ministre forces armées. waaw après xamal ñu parce que noo waroon génn le 3 le 3 bi passé dina waroon génn. Mhm. mu xam mu woo ñu avant le 3 mu woo ñu dégg naa da ngeen a bëgg a génn ñu ni ko waaw mu ni jarul ngeen génn parce que affaire yi pare na daanaka. am na yaakaar ni moom moom su mu wax mu ne am na yaakaar dinañu fay avant le 9 mooy le mooy la 9 passé. Mhm. bu ñu waxee loolu ñu tamit teg lép ci suuf. doon xaar mu ne le 9 fekkee gisu gisu leen dara après. le 9 octobre bi waaw le 9 octobre bi fekkee gisu leen dara le 10 ngeen ñëw euh, ñu nag ñu anticiper. Mhm. dem le 9. Mhm. jour le 9 gisuñu dara gaa yi toog di xaar tamit am yaakaar parce que soo xoolee suñu invalides yi chaque jour wala chaque deux jours nga dégg am na ko wàññeeku suñu. wàññeeku c'est-à-dire. Euh, décédé génn àdduna. ba barki dem si séquelles yi moom moo tax wala ma séquelles ya tax. barki dem moo si mujj. ba pare stress stress mun na rey nit xam nga nga dig nit dara mu koy xaar chaque jour ngaan ko tey suba tey ba ngay dund stress boobu toog sa lalu hôpital chaque jour wala nga toog sa lalu kër. Mhm. xam nga kon ku su mel ne Cheikh Ndiaye six mois nii génn du du génnul néegam. lan la ñu waxoon euh, concrètement moom lañ leen di moom lañ leen di defaral lan lan la. concrètement waaw dinoo xool dinoo xool condition de vie bi metti na ci invalides yi président ne dafay euh, daf ñuy jox benn ndàmpaay boo xamante ni. ku nekk nag ak sa taux quoi sa taux pourcentage bi nga am lu ko dalee si 5 millions mooy ñi am taux yu mag yi ak 3 millions 750 ak 3 millions ak 2 euh, millions. ki si gën a néew lay am. loolu ndàmpaay bi ñuy bi ñuy ñuy jox la. après ñu créer benn fonds boo xamante ni dañ koy dañ koy créer pour dolli ko si suñuy pension chaque mois mensuel lay doon quoi. Mm-hmm. chaque chaque mois ñu dolli am loo xamante ni dañ koy si suñuy pension pour ñu mën see gis suñu bopp. beneen bi muy problème xam nga. Mhm. Euh, quatrième point bi muy problème emploi réserve quatre points yooyu la woon. emploi réserve. emploi réserve mooy euh, am na si ñoo xamante ni mën nañu mën nañu liggéeyaat si état bi. ah da ngeen bëgg ñu jël si am. ñoo xam ne dañu jël réinsérer leen. voilà national du du leen fonction publique. d'accord xam nga. parce que am na ñoo xamante ni dese nañu kàttan wala soit dese nañu xam-xam boo xamante ni mën nañoo mën nañoo. léegi léegi actuellement mbir mi fan la toll nii. mbir bi fi mu toll nii lépp instant bi dan nañu moom moo ngi finance. Mhm. si wàllu koppar bi li ko war a génne. Mm-hmm. danañ moo ngi finance danañ tam signé nañ ko depuis le 2. ministre de finance signé na ko depuis le 2 pour ñu fay. mais su fekkee su fekkee état Sénégal dafa wax ne dafa signé mm-hmm. ak yéen euh, ni leen dinañ leen leen euh, revaloriser comme yéen li ngeen somme yi nga xamante moom lañ leen wax mais pourquoi pas defoo leen confiance euh, état Sénégal toog xaar rek en en attendant. wala dafay xaar dafay mais 9 octobre ak léegi bon yàggul 10 jours kese la. non xam nga toog xaar bi dafa yàgg dinaa la affaire pare na depuis mois de février la pare. waaw la pare ñu toog di xaar di xaar di xaar di xaar ba moment bi ok waaw bi ñu yëgloo nag. si mm. la si la dossier yi gaaw. ñoom ñoom am habitude président su santee dara ne def leen ko suñuy suñu côté ñun invalide yi mm-hmm. dañuy sentir dafay dafay yéex trop pour ñu balaa balaa ñu kaa def. actuellement est-ce que am na ñoo xamante ne. Euh, ñu ngi si ñu ngi leen di jël en charge nii nii nii au delà de li ngeen di ñaxtu nii par exemple ñi nga xamante ni si yéen lañ bokk ñu dem si hôpital yi ñu leen di faj di leen suivre est-ce que yaa am am na loolu am na. waaw ku nekk am nga prise en charge bu lay bu lay bu lay couvrir. donc loolu kay jaratul wala jaratul yàqamti wala no non non non jar na jar na jar na yàqamti parce que ñu ñëpp ku si nekk inscrire doom instant yi pour mu jàng mais loolu est ce que nekkul ñu bëri ñuy ñaxtu mm-hmm. ñoo xamante ne li ci daf leen métti la plupart loolu la ñuy wax dund gi dafa cher euh, que mburu mi dafa cher euh, dëwlin ci dafa cher loolu est ce que nekkul est ce que yéen seen combat c'est pas beaucoup plus haut que ça euh, au lieu ngeen di def Euh, pour enfin récupération genre par exemple dëkk bi dafa cher ñu euh, dañoo war a fay suñu jàng xale euh, yam rek si seen li nga xamante ne mooy seen réclamation comme c'est-à-dire je veux dire que yéen seen combat seen noble ay ñoo xamante ne da ngeen a demoon pour xeexali Sénégal mm-hmm. Sénégal moom moo tax ngeen euh, mm-hmm. si drapeau yi si ngeen si ngeen amee ay blessures mm-hmm. euh, que ngeen revenir di wax ni dañoo bëgg telle chose telle chose parce que dund gi dafa cher est-ce que loolu nekkul revirement boo xamante ne ngeen orienté un peu le débat xam nga xam nga ñun fekkoon normalement dañ ko teg si yoon rek ku nekk bi nga blessee li armée wala état bu Sénégal warloo yow def ko kon heure bi du fekk sax ñuy ñaxtu kon du fekk sax ñuy def commission ad mais problème bi mooy depuis le début. Mhm. la ñu salfaañi ak ak yelleefu invalide invalide dundam dafa metti déjà suñu pharmacie temps yee passe grève nañ fi trois mois yoo mhm. xamante ni mhm. yow imagine toi invalide bi nga xamante ne tey su xëyee jëlu garab mën na ñàkk bakkanam mu toog trois mois yoo xamante ne mu grève état bu Sénégal yëg ko armée yëg ko ndax lan dinoo dinoo ameel pharmacie euh, benn montant bi leen bi leen bi leen war a jox Euh, yow yaa yaay mujjee jël sa xaalis sa pension di jëndal sa bopp garab comprendre nga. Ah. wàllu faju bi tamit dafa des. mais amul amul benn fonds boo xamante ni c'est destiné à vous euh, bu leen di permettre ngeen dem jënd ay garab ñu leen di comme que ñu ngi ñu ngi leen di jël en charge ci hôpitaux y a pas xam nga euh, dinoo am benn benn dinoo benn carnet carnet de soins. Mhm. boo xamante ni chaque mois am nga droit dem jëli garab comprendre nga. parce que da prise en charge. am carte de soins boo xamante ni chaque mois da ngay dem ci médecin militaire. Mhm. moom moom moo lay moom moo lay bindal ordonnance nga dem pharmacie jël say garab mais pharmacie yooyu la état yoraloon xaalis ba tax na ñoom ñu grève woon trois mois déjà am na lu leen jox. ñoo ci moo tax ñu euh, mooy pharmacie pharmacie yi nga xamante ne ñoom ñoo adhéré. pour pour pour jox ñu garab. comprendre dafa bëri na quoi raison yi am na Dakar am na ñoom ñëpp a grève woon. toog mhm. nañ trois mois yoo xamante ne jëluñu garab. waaw bu jël garab yow yaa koy jël sa bopp. yaa ko dem jëndal sa bopp. waay comprendre am na si ay mort. Mm-hmm. am na si ay mort si ñàkk si ñàkk si ñàkk jël garab googu. ah si am na si ay ay ñaata si ñaata lañ toll. man ki ma si jot a constaté kooku euh, dafa ñëw pharmacie tey comme par mu ñëw tey joxuñu ko garab mu bëggoon ñëw jël garab joxuñu ko garab si lendemain bi lay dem coté ambassade euh, France foofu la foofu la Hmm. mais est-ce que loolu bon est-ce que loolu aussi tamit nekkul benn genre raccourci que moom décédé rek forcément que mais raccourci xam nga xam nga déjà invalide militaire invalide militaire déjà rek imagine toi yow nga war a nga war a faju yow nga nekk invalide war a faju fajar ngay yeew dem rangi si médecin yi fajar ngay yeew dem rangi si médecin yi hmm. jóge si médecin yi ah ak ku xam situation Dakar nu mu mel nu mu xatee hmm. jóge si médecin yi demaat pharmacie taxawaat rang am na xam ne dañ fay rang soo soo ba ngoon jot mais nañu yokkal pharmacie ba pare nag di fay pharmacie normal. ah fay ñu pharmacie. non ñàkk fay pharmacie yee taxoon. Hmm. pharmacie yi tamit téewoon tamit ñoom tamit seeni i seen seen i médicament. Euh, seen kii bi euh, militaires yi ñaata lañ en en. militaire ko xayma waa militaire invalide. waaw soo xoolee militaire invalide ñu nekk en activité ak ñu nekkul en activité soo ko xoolee soo ko calculer soo ko xaymaa dina toll ci cinq mille et 5000 et quelques ay ay yan xeetu blessure moo si. waaw am na am nay am nay maladie am nay blessure am ñu ñàkk seen tànk am ñu ñàkk seen bët. Mm-hmm. am ñu ñàkk seen loxo am ñoo xamante ni problème mu dégg la am. am ñoo xamante ni ah. xel loonu ñu am. Mm-hmm. involontaire maanaam bépp handicap. booy xalaat ci doomu aadama rek mu di ko dund rek. am na am si am na si biir involontaire.